ñaareel ba mooy wékk ci suñu boroom euh, doylu nag li muy tekki mooy loo am te yàlla jox la ko mu doy sëkk du tee ngay wutiwaat waaye sooy wutiwaat it da nga koy wuti ci ak dal ak ak teey xam ne waaxu mënul la caa tax a jot xam ne sax boo doxee ba di ko wuti ba sonn bu la soobee mën ngaa tëdd dallu xam ne nelaw téewul nga mën caa jot yàlla na ko yàlla jàpp ndalal moom lay wax ci alxuraan naan innal abraara la fi naayim ñi fa boon seen tànk teg ko ci ndigali suñu borom yi seen kem kattan ba wuy yàlla su ëllëgee janna aljanna ji ñuy wax jannatu naim la ñuy dëkke yàlla nañu ci yàlla boole waaye bala ñoo dem àllaaxira it mën naa feeñ fii ñi seen biir nar a jag ñuy dem jannatu naim yàlla da leen di yabalal fii jëmm ju ñuy wax doy lu ñu dëkk ak moom waaye ñi nga xam ne it دفا وقت نيوم ان الفجار لا في جحيم أه، بو الغي سفانو ني غا خامن لو لين نيه دون لا نفي نيكون تي خامون ني لا نيك دو نونا جوتو نكو توب با بايكو في نينا كير بو ني واخ جحيم لا ني دك يال ان شاء الله مسل وايي لولا يت فام لين دي فينو باني خامن فوفا لا نجم موي داف لين دي baye ñu dëkk ak ku ñuy wax séeneen wala xeemeem loo gis loo gis bëgg ca yàlla nañ ci yàlla musal moom lay wax ci alquran ne nit ki moo xam góor la wala jigéen la su nekkee fii ci kaw suuf nekk fi lim fi war a nekke su ëllëgee coono yu mënoon a am ci dundu àdduna ko gàtt gi dana am naflaay bu ko ëpp fuuf waaye moom bu mbireem naree jage noona nam koy xame mooy yàlla daf koy jox dëkkandoo ji ñuy wax doylu moom itam yàlla insha boole am na feneen fi muy wax ci alquran ñaanuk saydina waxi saydina ibrahima la ba muy waaraate ñu koy joxoñ luñ tudde yàlla ñoom ba muy wax yàlla mi muy doxal ab yonentam bokk na ca lam leen di wax yàlla moomu alladi yumituni summa yuxyin alladi atmau an yaxfira li xatiati yowma ddin waaye yumiituni summa yuxyiin am na ñu wax ne wallazi yumiituni mooy ki nga xam ne yàlla mi nga xam ne mooy rey ci sama biir jëmm ji ak pas-pasub séenéen ba mu dee wet mu wottee ko pas-pasub doylu yumiituni bi tama ويحييني بالقناعة يلا نكو يلا دفل ويلا أعذبنه عذابا شديدا جبور دون وخب لكو جيت موي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين بنيوي لا عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين من لا لا أعذبنه عذابا شديدا موي بو نيوي دا نكو سولال مبون سينين لوم امنا لا تشا والا واي بو مكو سميلي داي فك ci digënté bob ma xañ ko yit mbubum doydu doylu mom kum jëgé ci mom séeneen dafay sës ku séeneen nag euh, ci ñi seeni wolof leerut bu baax mooy koo xam ne lim xas teg tànkam gisatu ko lim tiim moom nu mën a mel su doon ndab la loo xam ne mel na nam war a mel melit ma ngay nekk ñu ubbi ndab lële ba xam lu sa nekk suñ ca bokk su fekkee yaari ndab yépp bokkulu ci nekk mu ne daa mel ne lële moo gën a tàng jub wutaliku su demee buñ dollee fa mu bàyyi ko woon ndax mbooloo ma sukk ca ndable xelam na ci wàññikuwaat du toog fenn day wër rek moom gisatul li am xoolut ñu topp ci ginnaawam te bëgg a jot ca ndab la mu jëkkoon a sukk xoolut ñi ci ginnaawam waaye ña ca kanam a kanam lay xool léeg-léeg sax mu xool koo xam na ndab lam tiim dara nekku ca waaye lim teg loxoom moom gisatu ko moom yàlla nañu yàlla musal ci séeneen waaye ku doylu day mel ne kenn ci ñu baax ñi euh, soriwut fi dara mi ci réew mi mi ngi woon ci réew mi bokk dafa am ku ñëw ne ko dañoo bëgg man ak samay bokk nga ñëw xool kër ga ma def barab sàngam defaale fa ñaan mu ñëw xool ko ba àggal ne ko ah yow de sa barab bi wax dëgg yàlla man de su ma doon ñee kenn ñee ci noonu la nit ku yiw di mel li kër gi yéeme yéeme néeg booba mu bàyyi ko ak la muy sagara sagare doy na ko seetu lëkk yi am te loolu ku ci ku fa dëkk toog fa bañ fa jóge doo añaane kenn dara waaye ku dugg ci buntub séeneen léegi tey mu tàmbalee añaane nit ñi lañ am lu tax awma ko lu tax meluma ni moom te yàlla noppi soxna Xafsa ci waa kër yonent bi la bokkoon sallallahu alayhi wa sallam ñi newoon ci biir këram daa dem kër baayam Seydina Omar radiallahu anhuma fekk bu doon ci suñ jamono mu sol col mi xew léegi mi ci gën a cher di jar lu bari diw sàngam ñaw ko mu ne ko waaw xanaa xamu ne dafa tàng teewoon ngaa sol perkaal walla boog diril Seydina Omar ne ko awma soxla ci lu woyof ak lu diis lii daal xéewal gu ma dikkal la ma di ko xéewloo képp waaye xaw ma diis na xaw ma woyof na ndax da ko bëggoon a ubbil buntu dajale ay yére buy sedd ngay sol lii buy tàng ngay sol lii ne ko xanaa xamoo ne ñen ñu nek ñu gëna xam seen matelal ku ne lam def bu ko doye baye ko loola da ko doy mu doy lako xana xamone yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne nga nekkon wala fa nga nek doon nab yonent nangami at eh, so deglo li ma lay bëgg wax lo am dang ca japp lu nit amet nga bàyyee kook moom mu jàpp ca nga jàpp ca la nga yor tam doy la ne ko xanaa xamoo ne lim fi nekk ab yonent ay diir ab diir néew na bis bu mu tegalee yetti wos yi ñuy yi ñuy teg bis bu set mu matal leen néew na lu mu ko def néew na lu mu ndékki ba suur añ néew na it lu mu añ ba suur reer waye newna lol lum rer am lum deke te moo doonoon rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yàlla wax ne fihi uswatun hasana sallallahu alaihi wasallam xana xamone yonenti bi bilal dana ñëw ne ko noddu de lee mu jot fek muy gar mbubbam mo xamne daa xara xara xara ba mënatut a génn ak moom mu di ko gaar daana àgg ci buñ noddee sax du am lu mu sol génn day àbb ci waa kër gi lu mu suturloo rek génn julli génnaat te moo ne moo doon rasulullah waaye loolee mu doon gaar gannaaw moom la ko yàlla joxoon doyoon na ko sëkk sallallahu alayhi wa sallam omar di wax ak soxna xafsa ak nam toll woon ci dëgër ak gëm yàlla ak xool bu dëgër ci dëgg ba yàgg mu ne yëkkat moom Seydina Omar soxna Xafsa ma ko doon wax ci nu mu war a waajee mbub mu waaye ak mu diis ci tàngoor ak cëb sedd moom it na yëkkat kon bokk yàlla na nu yàlla defal doylu yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne ki gën ci yéen bu ngeen ko bëggee xam bu leen xool ki nga xam ne dane amul soxla ci àdduna di waajal àllaaxira loolu moom njuumte mënu ko weesu àllaaxira su baaxee àdduna la jage fa la borom liggéeyee waaye nag àdduna li ci am njariñ daa bariwut tuuti la muy li nit ki dund bi mu ñëwagut bokkagu ci saa bu demee ba mën a tuuti bokkatu ci dañuy seeti ñu man kon bokk yi ak man lu tuuti la ku ko yàlla defal ci àdduna na gaaw waajal ci àllaaxira waaye kii yéesu moom mooy ki fab àdduna kese kese moom defe ne fi lay yam moom lépp loo baax fi lay baaxee bu baaxul fii du baax feneen waaye nee na ki ci gën mooy ki nga xam ne daa jëkkanteeg àdduna rek wut ci lu mu yóbbuloo fële te loola dara jiituwu ca doylu loo am jàpp ca dem di wutiwaat nañ ca na ko war a wuti yàlla nañu ko yàlla jàppandalal li nit kiy nekk nag ba di ca doylu yonent bi sallallahu alayhi wa leeral na ko nee na li nit kiy nekk di ca am astu